bonjour amis et fidèles internautes du Dakar Roi 221 Dans le diam ci une émission Comme, comme ». comme son nom l'indique l'économie de l'informel ngeen koy tous les mercredis à partir de 11h sur le Dakar Roi de 221 ngeen ànd si avec ak la sister Kenza Comme, comme » nag li ko tax a jóg du lenn lu yomb dem def porte à porte ci ñi nga xamné ñoo yëngatu ci walum commerce de waxtaan ak ñoom xam seen jafé jafé xool seen métier li ci neex ak li ci nakari te nag ñu ñëw fii nag ci village artisanal de Soumbédioune fekk fii nag suñu benn naataango mu nekk fii di daan dooleem mais yemul ci loolu kese en même temps da yëngatu ci beneen activité mais balaa loolu dama koy tàllal sama micro mu nuyoon teeg ami internetu Dakar waa 221 nuyoon teeg soppeem nuyoon teeg ñi nga xam ne ñoo koy seetaan sëñ bi nuyu naa la. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Dakar 221 maa ngi leen di nuyu yéen ñi ñuy seetaan ñëpp ci Sénégal ak àdduna bi yëpp di am mbégte bu baax ci seen émission bi di reeni koom-koom defe naa ne àdduna moom lépp lu nit di def rek daf cay soxlaa koom-koom kon maa ngi nuyu sama mbokki artisan yi ak sama mbokki village waay yi ñi nga xam si ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi yëngu ci luy may may am koom-koom di rafet lu baax nag émission bi jërëjëf. Euh, ñoo ngi lay euh, delloo ziar euh, sëñ bi aussi di rafetlu aussi accueil bi fii nii ok ñu ne yow yaay Basirou Mbow case 41 fii ci Soumbédioune ñu bëggoon xam carrément kan mooy Basirou Mbow. wa jërëjëf Kinsa euh, Basiiru Mbooda ndongalu xeebu la rek juddoo dekk bu wax keur mour Abdou nek ci commune bu Mbéjéen nek raison bu lugo waye tambalé ab njàngum pikin iko taf waye ko village artisanal Soumbédioune en même temps di liggé ci ben entreprise bu tuddu Imadi kooku mooy Basiiru Mbow ndongalu xeebu

ñun ndawi Kër Mor Abdoulaye Seye ñun ñëpp dañoo maase taxawal benn association boo xam ne ressortissant de Kër Mor Abdou xam nga Kër Mor dafa bindoo noo xam ne si ne dafay dëkku kilifteef ba pare nekk dëkku culture ndax culture nitub daara la kuy jàng métier sunu maam ji ko sancoon di sëñ Mor Abdoulaye Seye sampe ko daara waaye sunu maam ya ko fekk si woon ñu ñëpp kenn nekk ci métier kenn ku nekk nekk ci métier man samay maam nek ci metti mi ñu nek ni bi loolu lepp amé nak ñu dem ba xamné dekk dekk dekk ci dekk bi defar dekk bi ko gën ñun ñëpp ñu maara nak taxawal association bobu di ci wo kep nak xamné nak murab doomu Kër mu Abdou nga no ci mëna a rek ñu la ci wo ngir sagalé ko euh, suñu maam joji nga xamné mam maam abdoulay sey waye nak ak rawati na señ mour fallo sey mi nga xamné mo moo ci señ Touba andil ñu ko suñu dekk bobu ñun ñëpp nak ñu maase nak top ci ginaawum di jéem a def li nga xam ne si ne manqué na fa tañ mën koo def li nga xam ne si ne manqué na fa te mënuñu ko te am na ñeneen ñu ko war a def ñu ñu ñu ñu jubal ci loolu daanaka loolu rek objectif mooy loolu jublu rek suqali kër Mor mooy mooy mooy wax ci ci gàttal. ñoo ko ñoo ko déggandoo euh, mbokku internet yi ah, surtout nag ñi nga xam ne ñoo dëkk euh, Louga dégg ngeen euh, Bassirou Mbow moo ngi leen di woo ci association boobu nga xam ne moo koy jiite nekk fa ab président kon yéen a ko déggandoo ah après xam naa rek ñi lay seetaan dinañu ñu bokkul woon dinañ ñëw bokk ci association bi léegi sànq ci bi ngay wax rek di wax nga métier et tout ça léegi ma bëggoon xam Bassirou ci lan lay yëngu surtout nag ñoo fekk la fii ne euh, ci village artisanal de Soumbédioune te boo nee artisanal rek euh, turu aar bi da koy dégg ci biir ci biir moo boobu kon ñu bëggoon nga gën ñoo yaatalal rek ci li ngay def. waa jërëjëf Kinsa maa ngi jéglu sax dafa am loo xam ne moom laa waroon njëkk te dama ko mujjee tey dañoo dugg ci béréb bu chambre de métier kon dañoo war a nuyu président chambre de métier Maguette mbaw ndax mi ngi fii. daal di nuyu mbooleem OPA yi nga xam ne ñu ngi ci biir yëpp organisation yi nga xam ne si ne dañuy yëngu ci wàllu aar ndax fii dañ ko organiser métier bu ci nekk dafa am ab mouvement te ma bokk ci mouvement bi nga xam ne si ne mooy cordonnier kon maa ngi nuyu sama président sëñ Fallou nuyu secrétaire Ndiouga nuyu sama beneen association bi ma bekk muy Pikine mouvement national marocain yi eh, te la di Ma Omar Thiam maa ngi koy nuyu moom itam kon man maa ngi yëngu ci métier bu ñuy wax marocain sénéral maanaam dañ cey defar lépp lañ cey lañ lañ ciy def ci ci ci wàllu der daal la ñuy yëngu ci liñ ciy yëngoo nag suñ xalaat lañ ciy yëngoo maanaam ci façon bu nu ñu dikkal rek wala nu ñu ko bëggee rek noonu lañ ciy yëngoo d'accord euh, di nuyu aussi euh, président bi nga xam ne moo jiitee fii nii ah waa chambre euh, voilà chambre de métier mu tuddu voilà El Hadj euh, Maguette Mbaw ñu koy nuyu au passage léegi nag ñu ñëw fii nii gis la carrément gis nañ fi dugg sa boutique gis fi euh, lu bari gis nañ fi ay saak gis nañ fi euh, ay jaaro gis nañ fi ay béjjén ah gis nañ fi daal lu bare bare bare bare bare ah, est-ce que lii nii yëpp yow yaa koy liggéey. waaw jërëjëf ñun dañuy liggéey à famille ndax fii ma nekk ñu toog. man dama fe nek ak sama benen dom mak ak eh, Amadou mi ngay ñëw fi kenn ku nek da ngay fete ci walu nga nek di fete ñun ñëpp ñu àndandoo fi di liggey waye en général lo fi gis rek eh, suma ko liggey rek ñooñ ñoo ko liggey non lañuy liggey ñun. d'accord léegi ma xam a ah, yan façon sac ngay liggéey parce que gis naa fi ay sac gis naa fi ay pochette et tout ma xam a ah, yan façon sac ngay liggéey ak eh, matière bi bar matière la. waa jërëjëf kim saa façon saag moom mën naa la wax ne lii yëpp la ñuy liggéey maanaam tey jii ni yow boo ñëwoon indil ma sa modèle wala nga fotaal ma ko ne mu bii saak laa bëgg liggéey dama koy liggéey euh, ban der la ñuy liggéey ak ban po la ñuy liggéey rek sans dépassé ci pot bi nga bëgg parce que danañ liggéey serpent danañ liggéey iguane danañ liggéey deru xar et puis façon der yooyu mu wax yooyu tamit da cee am ay der yoo xam ne si ne ñun fii lañ koy ullee mais dafa am yoo xam ne si ne étranger lañ koy wullee soo ci bëgg nag bu mu ci mën a doon dañ cey liggéey en même temps sax xam nga àdduna dafay xaw di dox day dox yenn saay ndax instant bi nii wax dafa dox kon dañu yaa ngi ni gis fi ay saagu wax dañuy liggéey ci wax dañuy liggéey ci eh, xeetu eh, paañ yi nga xam ne si dafay am ak yooyu yëpp sant ba daal ñun ci clients yi am mais amuñu amuñu amuñu difficulté pour liggéey lii ak lii daanaka suñu xel daal lim ñu may bari na macha allah. d'accord euh, léegi ci sa biir wax di wax nga fi ay wax et tout ça. léegi man gis naa fi wax en même temps gis naa fi der et tout na ko bëggoon xam rek euh, matière yooyu noonu fan la jóge fii Sénégal la jógee wala euh, euh, Europe la jógee. waaw su dee waxee moom gëm naa ne yaakaar naa ne fi mu déggatuma fi benn usine wax bu koy def yaakaar naa ne kon étranger lay doon waaye ñun ci yenn commerçant yi rek lañ koy jëndee bu dee waxee ak yenn paañ yi mais bu dee façon yi ñuy ràbb ak yooyu moo am na xeet boo xam ne Côte d'Ivoire lay jógee. am na xeet boo xam ne man lay jóge am na xeet boo xam ne bi Guinée lay doge ndax kenn ku nekk sa tradition bi ngay defee mais suñu Sénégal gi tamit am nañ suñu suñu série rabal yoo xam ne si moom la ñuy def bu ko dee yi jóge foofu moom la ñu jógee bu dee ci wàllu der wi nag moom bu dee deru xaram moom bu dee eh, local bi la moom mën nañoo wax ne lépp fi lay jóge bu dee iguane am na lu fi jóge am na luy jóge ci surason bi su dee koroko am na lu fi jóge am na luy jóge ci surason bi li jóge ci surason bi sax moo gën a bari waye bu fekkante ne nag bi nga xamne wulli machine la nak mom étranger lay joggé moy bi nga xamne dañ koy wulli manam fi la der bi di jóge ñu jaay ko Europe ñom ñu défar ko paré délo ci wat ko diñu ko jaay. d'accord légui euh, est-ce que liggéey bi yomuna na wala est-ce que da ngeen jankonté la euh, yenn difficulté yi. Euh, comme par exemple yomuna yomul ndax aduna mom loolu ñu euh ku man sa métier rek. lekk sa xaalisu morom bu mu sañ te bañ kon dèjà yombul ndax mu noo cee nekkee at jàng ci am ci difficulté euh, yàq ci lu bari wala yàq lu ci bari pare muy yomb mais mën nañoo wax ne yomb na tamit ndax nit ki bu amee pas-pas am xelam ak xalaatam tëjul tëjul boppam maanaam xelam demul ci armoire rek mu ubbi ko tëj tëj ko fa defe naa ne lu lu mbir jafe-jafe tamit yàlla mën na ko cee dimbali moo tax daal en général amuñu ci benn jafe-jafe ci ci ci liggéey yooyu. D'accord, amo len ci euh, ben jafé jafé. Légui ñu gis par exemple boy defar saak bi création bi design bi tout ça léegi design bi mom fan lay euh, fan lay joggé da ngeen di tok xalaat wala et aussi est ce que réellement da ngeen ko jang wala dal bëgg na xam nga bëgg na dal euh, nga gën maa expliquer lool noonu. waaw dañuy xam nga doomu aadama da ngay bo juddoo da ngay jang métier. Mhm. xam lool mooy métier ba paré waye bo jangé métier ba paré tamit don don artisan. ci xel la maanaam yàlla moo koy may xel boo xam ne si ne nekkul na parce que bu doon loolu donga di nga gis ku jàngal nit ba pare yow ki nga jàngal man loo xam ne mënoo ko parce que man euh, am na ay xeetu trésor yu may man yoo xam ne si ne boo doon dugg ci ñu baree bari man nañ am na yoo sax mën nañ ñu ko gën a man waaye mënuñu loolu kon loolu xel la bu ma yàlla may rek euh, bu ko defee ci ci ci matière bi xamatuma loo loo loo mujjoon a wax de. Euh, Lagi gis ah, nga sagi yi di ngeen koy defee et tout création bi créer wala da ngeen di toog ah, waxtaan ak ay nit ñoo la def ni def leen wala ay nit ñooy dem dagg jox leen yéen ngeen yeggali. wa jërëjëf ñëwaat non Amma na si façon boo xam ne ñoo koy créer xam nga tey bo defee model bi ba mu yàgg mu yag fi lol da ngay tëju sa xel xolat na xaar li model bi warna ci mëna yokuli wala warna mëna mën a benan sax benen model wala en même temps client ñëw am modèle boo xam ne si ci euh, ci réew yeneen yi dafay seer lool pour mu mën koo jënd te moom bëgg na koo am teg-teg mu ñëw ne la modèle bi laa bëgg mais yow nag yaa cay def sa xelum bopp def ci say modification ba nga xam ne si ne même même bu fekkonte ne kooku war na laa mën a topp si yoon du la ci mënu laa topp si yoon parce que yow yaa ci def sa xel yokk ci loo xam ne moom nekkul ci modèle am boobu mi mu am moo tax suñ suñu xel lañuy lañuy la ñuy wéyee en général ci ci modèle yi à chaque fois dañuy tëju rek tëju xool ne ah tey jii war naa génnewaat modèle bi modèle bi yàgg na fi wala lanceur bi amoon na temps waaye naa ci defaat lenn loo xam ne si ne su ma ko defee dina gën a affaire yi dina gën a évoluer. Mm-hmm. d'accord affaire yi euh, dina gën a évo évoluer ami internaute comme ni ma leen ko waxee rek euh, ñoo ngi fii euh, ci seen émission koom-koom. l'économie de l'informel ñëwoon fii nag euh, ci marché euh, Soumbédioune seet si fii suñu naataangoo dégg ngeen ko depuis sànga ba tey moo ngi leen di jox ay leeral ci li nga xam ne euh, moom lay moom lay yëngu léegi Basirou xam nga man nag samay bët dafa sob ñu ñëwee ba tey maa ngi xool ruq-ruqaat yeeg yooyu noonu léegi nag dafa am benn affaire bu ma gis rek ma bëgg koo yëkkati ah nga jox ma ci ay explication léegi euh, lii ma gis ci benn seetu seetu bi nag mu am euh, luñ ci euh, luñ ci def et tout gis naa ne aussi tissu bi wax la et tout ça léegi ma bëggoon xam rek lii ban ban genre création la ak lii nu mu tudd. waa jërëjëf Kenza xam nga lii lépp dafay wéy ci xel parce que lii nii normalement waa environnemental mhm. dañoo ñu cee waroon di jàppale bu baax a baax parce que ñu ngi leen di jàppale parce que tey jii nii. couvert bi ay caption yo xamne ci dafa waron dem balit muy dem ci souf ci muy yàq souf ci muy def lenen ñun ñu jël suñu xel na ah li kat bala ñukoy koy nañ ci def lo xamne ci ne askan bi dinañ ko soxla mooy caption bi ñu mouré ko ak wax jël setu bi def ko mémoire légui def naa ne yaakaar naa ne rafet na mën na dem ci salle bu nek té légui bu dul lolo looloo ca mbalit ma lay dem motax motax non la noonu lañ loolu ñoo xalaat suñu xel rek xamne adduna dara warut a yàqu waruñoo sànni dara lépp lu jóg rek am na fu mu war a dem boo amee xel mi boo amul xel mi nag da ngay da sànni rek lool la foofu lañ inspiré woo pour mën a defar lu mel nii ak leneen ak leneen. dëgg la comme ni mu ko waxee rek nee na àdduna euh, yàq baaxul am na yenn yoo xam ne aussi kenn waru koo kenn waru ko sànni mun nañ ko utiliser raison pour laquelle moom moom la def nii jël euh, caption yi. jël ko defar ko euh, def ci wax et tout ça def design bi gis nañ macha allah li mu defar rafet na ba bëgg a dee te euh, soo xoolee li mu utiliser nii am na ñoo xam ne moom nañ ko jël dem sànni ko ci mbalit bi ne carrément lii mënul dara alors que lii am na njëriñ ndax gis nañu ne def nga ci benn affaire bu nice benn affaire bu rafet jël ko def ci sa wax et tout ça je pas kol nga ci def je sais pas xaw noo ko defaree noonu mais macha allah li rafet na trop voilà gis nañ fi ay seetu gis nañ fi aussi euh, sac en wax macha allah affaire yi euh, bëri na léegi aussi ma gis la aussi ngay liggéey ci wàllum der gis naa fi ay béjjén lii ma bëggoon xam man béjjén yi moom fu mu jógee. waaw Kimsa ñu ngi lay nuyuwaat bu baax bëjjën yi moom itam dafay daal di delluwaat ci. Eh, seetu bi rek ñoo xaw a yem ndax bëjjën en général euh, defe naa ne sax moo gën a garaaw plastique parce que bu defe naa ne bu doon am santa ci suuf si du du day yàq suuf si waaye dara du ko yàq moo tax comme ci li ma doon wax ne dara boo xamee dara waroo koo sànni moo tax ñu jël ko defaraat ko ba mu rafet def ko meuble boo xam ne si ne non seulement da nga ci mën a décorer sa kër te mën nañ cee def yeneen ak yeneen sax am na ci façon yoo xam ne bu ñu neexee mën nañ ko def sées amna ci façon yo xamne bu ñu nexé mën nañ ko def lampe bés façon bu nekk buñ ci def suñu xel lañu ñu wéy rek baña baña yaq rek lool kessé la moom tam bëjjën yi mo waral lool mm, d'accord légui nak euh der yi ñu ñëw ci der yi légui ñu bëggoon xam rek yeen euh, der yi fan lay fan lay juggé der yi fan fi ngeen koy jëli wala e bëggon na xam aussi nu ngeen di def ba am accès ci der yi. waaw ni ngi lay jaajëfal bu baax. bu dee der yi bu dee deru xar moom li ci ëpp fii lay jóge wala Mauritanie euh, suñ ko utilisé pare xam nga Sénégal nag dafa bari événement événement religieux yoo xam ne si dañuy soxla dañuy soxla gàtt yeeg yooyu suñ ca paree pare nag dañuy jëlaat der bi dugal ko laboratoire jaar fa mu war a jaar yëpp daat koy soxla bu dee ci àllu Casamance beeg yooyu tamit xam nga am na ci xeet boo xam ne bu demee ba màggat duutu duutu amati njariñ bu ko defee rëbbkat dañ koy jël buñ ko jëlee pare nag. bu ko defee ñun ñu jël ko dugalaat ko laboratoire ba man ñu mëna amal ndariñ fofu la der du joggé bu ko defee su dee su dee su dee korokoo nag moom li ci ëpp mom ci sous région bi lay joggé ay malek yu mel non parce que ñooñu ñoo ñoo ko ñoñu ko gëna bari la dal waye fofu mom dafa xawa am touti ay problème parce que su dee korokoo euh, tant que demoo ci tubab bi nek Casamance am élevage pour nga liggé ko mom da fay xawa jafé moy dañ koy interdit maanaam yenn nombre yi. dañ koy interdit moo tax moom dafay xaw a jafe moo tax en général liñ koy laal sax du bari. d'accord li ngeen koy laal du bari mais est-ce que der yi jóge foofu noonu ñëw fii nii est que dina yomb est-ce que yomb na. non du yomb xam nga Sénégal moom dara yombul mais dafa am liggéey bi dafa xaw a yaatu parce que nekkul ñun kese am na ñeneen ñoo xam ne si ñoo koy importer pour indi ko buñ ko indee pare ñun ñu jëndaat ko ci ñoom doo ko mën defaraat waaye des fois ñoom it ñu am ci kii ci eh, jëflante wàllu douane ak yu mel noonu parce que des fois wàllu environnemental waroo laal li waroo rey li waroo lii des fois loolu moo leen di xaw a sonal daal mhm. waaw. mais est-ce que yéen def ay jéego comme ça ngeen xam ne lépp lu ngeen soxla ci wàllum der rek dina dina yomb est-ce que yéen a ngi ciy def lépp li leen war. waaw suñ kilifa yi dañu ngi ciy def lu xam nga sànq wax naa la yaa ngi ci bérébu chambre président chambre de métier président chambre de métier parce que kooku euh, état moo ko organisé askan bi di ko fal pour muy dox diggante nit ñi ak kon desa jafé jafé buñ am rek ñom danañ ci def seen lay carton pour pour loola mëna safar kon ñom ñi ngi ci dox bu baaxa baax da ci am yo xam ci si yombul am yo xam ci si yom euh, xëy na ndax am na ci yo xam boko boo euh, da ngay dem wuti si si test rek ñu mëna la ko defar lool nak ay lijeenti motax ñu mëna am motax kon nak ñom ñi ngi ci ñi ngi gor gor lu baax. d'accord ñoo ngi gor gor lu baax légui am ça est-ce que état bi mo ngi len di ah, mo ngi len di gesto est-ce que ñu ngi len di yombalal aussi yenn mbir yi. waaw def mi ngi lay jaajëfal bu baax question boobu mom amna solo trop waaw état mom ñu ngi ñuy nam ñu ngi ñuy bu baax ndax béréb bi nga nek rek euh ci ndimbalul chambre de métier état moy ki ñuko ko defaralaatoon te wax na né dina continuer defaraat yenen place yi yépp xeyna li fi jaaroon yalla na fu yàlla jëlee ba mu jeex fi tak muy corona xëy na moo baare liggéey yu bari kon état am na lu mu def dèjà euh, Covid bit amna am na benn bu mu génne won war na dañ ci dimbalé artisan yi am na artisan yu jot am na artisan yu jotagul kon ñi jotagul ñi ngi lancer wu rek ci kilifa yi ñu lu ñom bañ mëna jot ñoo ñeneen ñi ñeneen ñi joté bu ko defee bu loolu lepp wéyé nak ñu gëna ñu gëna xoos nak nak artisan bi soko ko lim wara def rek du soxla ndimbal deug deug vraiment. Euh, ñi jotagul euh, ci fond bi yal nañ ci euh, yal nañ jot yal na leen yàlla jàppale ba ñu jot légui nak ñu bëgg xam yeen jéego ngeen di def pour seen liggéey bi gëna jëm ci kanam. waaw Kinsa xam nga yeen jéego lañu def aduna li ci gën moy organisation so amul organisation di nga gis ku am ku am organisation jël loo loo xam ne yow yaa ko moomoon loolu nag nit ñi xam nañ ko wax naa la sànq man bokk naa ci mu si sunu mouvement euh, benn sëy marocain yi alaaji fàllu si la jiite ko maa nga ci biir organisation yooyu ñu def nag bu ko defee nag état tamit organisé na samp naa ay agence yoo xam ne yu mel ne APDA ak agence yoo xam ne uniquement pour artisanat waaye li ci li ñu ci gën a soxal nag ñun ëppal ñu solo mooy ki nga xam ne ñun ñoo ko fal teg ko fa muy chambre de métier dox suñu diggante ak état yi lépp li nga xam ne si ne tënk nañ ko wala lépp li nga xalaat xalaat nañ ko xalaat ne lii dafay baaxal artisan yi wala dina baaxal ëllëg sax yooyu dañ ciy organiser wu waxtaan ci def ci ay panel di ci waxtaan ba xam naka la ñuy mën a defee ba la woon démb li woon tey dox ko loolu ñu ngi ci bu baax a baax jaare ko ci ngi kii association yeeg mouvement yi. d'accord Bassirou léegi nag euh, est-ce que seen marchandise yi tamit cherul vu que der bi am na yoo xam ne fii lay jóge am na yoo xam ne du jóge fii nii ba du ngeen focaliser ci loolu rek euh, ba jël yenn prix euh, xaw koo seeral. waaw gis nga loolu dafa am solo trop wax dëgg yàlla affaire yi seer na waaye dafa nekkewul ci ñun xam nga nit ki mënul jënde fukk bëgg a jaayee juróom yow li ngay jaay mi ngi dépendre ci yow li nga jënde rek loolu mooy tax kon foofu tamit dañ fay woowaat état mu gën ñoo mën a jàppale ba nga xam ne si matière première bi dina yomb mais non seulement jumtukaay gi dina gën a yomb parce que liggéeyu liggéeyu aar dafa xaw a métti xaw a yàgg bu fekkente ne amoo yenn jumtukaay yi nga xam ne si ne soo waree liggéey cent pièces dix pièces ngay liggéey loolu pour nga jaay ko lu yomb dina xaw a jafe waaye bu fekkente ne nag am nga ay moyens am nga ay ay jumtukaay yoo xam ne si ne moo tolloog jamono loolu yaakaar naa ne ngay mel ne produire lu mat ay cent pièces ay deux cent pièces defe naa ne askan bi yëpp dinañ ci mën a jot kon nag loolu. ñu ngi ci ñu ngi ciy gën a woo waa état ñu gën ñoo jàppale ci yu mel noonu ba nga xam ne si ne euh, ni ko suñu yeneen dëkk yi sous-région yi di mën a defee ñun ñu mën koo defee noonu parce que bu dee liggéey xel be xalaat moom jë gëm naa ne kenn dàqale ko kon li des rek mooy moyens ak ak ak yi jàpp yi bu jàpp rek dina jàpp ndal ci ñun yéen itam jàpp ndal ci yéen waaye nag euh, xam naa di nga ci ñëwaat sax dinaa leen woowaat yéen itam nag sénégalais yi ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi ndax consommer local dafa baax ci doomu aadama yi

waye amna lenen leneen lu ko gëna a baax wala boy sylvager da nga sylvager matériel parce que tay man na la e-, jox exemple rek ci ben centre bu mo waron di liggéey amna machine bo xamne ne su ma ko amoon mën naa xëy liggéey ci 2500 PS. pièces mais bu re sama loxo kessé may wat di di di di wàcce di def li nga xamne mom la wara def pour mu baax pour mu am ko dina jafé ta machine bobu dafa cher kon nañu état sylvager wala mu wàcce ko andi ko dañu ko jaay ay prix yu favorable yo xamne buñ ko amé rek après ñun dañ ci dañ ci mën di génn mo gën di jox xaaliss nit parce que xaaliss mom manam nit nga jangal ko ay jumtukaay yu ñuy nappé mo gën nga jox ko lo xamne ci si li nga koy jox non seulement doyu ko waye bo léegi da koy soxlawaat kon nga jox ko lo xamne ci day mëna amaat ba ëlëk sibil biir sax bu état soxla artisan dañuy mëna a groupé wu mëna a ci seen doole ak seen seen seen man-man mën a dimbalee état mën a dimbalee ci réew mi mën a man a tabax sax yeneen yi nga xam si ne parce que bëgg nañ ay ay centre de formation ci gox goxaat yeeg yëpp mais bu fekkoon ne artisan yi ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey am la war a am ñoom ñëpp si ci suñu association yi kon association bi danga gis mu ne tabax na bi bi bi école de formation wala nangam mu nangam ba ci lu mel ne sama dëkk bi nga xam ne si ne Kër Mor Abdou Sey Kër Mor Abdoulaye Sey jiite foofu association man maa ngi ak métier ñi ci bokk ñëpp yeneen am nañ am nañ yeneen métier tey bu fekkoon ne état jàppale nañ ci comme loolu ma loolu nga wax bañ mën a am doole suñu association mën a tabax benn centre de formation boo xam ne si ca dëkk ba la ki nga xam ne si dafa nekk ci daara jàng ba pare jàng xam-xam après amul feneen fu muy jëmaat kooku dana mën a dugg ci métier mi defe naa ne lool ki nga xam si ne bay bay benn année rek la am kii ñetti weer rek la am su paree xamaatul lu muy def day ñëw Dakar xat-xat loo fi kooku tamit bu amee ay de formation mu nekk ca dina am leneen lu mu mën a def kon état moom liñ koy woo rek mu gën a jàppale ci moyens yi nga xam ne si ne artisan bi dina dina mën a dina gën a mën a gis boppam ci li muy liggéey. d'accord ñoo ko ñoo ko déggandoo mbokk yi ah, toujours rek ñu nekk seen émission koom-koom waaw ñëw fii ah, ci marché ah, Soumbédioune seet si suñu naataango bi nga xam ne fii la nekk di liggéey ci wàllum der wàllum tissu waaw li muy def daal bëri na boo ngeen gisee boutique bi macha allah affaire yi bëri na fi trop ah te rafet na aussi léegi dañuy ñëwaat rek ci wàllum der bi ndax sànq ci sa biir wax rek nee nga der yi ngeen di liggéey bëri na. wax nga fi daru xar wax nga fi crocodile wax nga fi iguane iguane sumu jumu moy mbeut moy bar moy bar voilà c'est ça voilà lazar moy euh, moy meut ligi euh, ñu bëggon xam ndax der yépp ñoo bokku qualité parce que des fois da ngay dugg ci boutique di jënd ben affaire wala nga gis ben ceinture wala nga gis ben sac et tout ñu nan la der yi bokku motax non le prix yi wuté kon ça veut dire que suma jumlé qualité yi dëri daal dañ ko maaje dañoo am qualité daal bokkuñu. waaw Kilisa maa ngi leen nuyuwaat bu baax di nuyu mbokk yi ñuy seetaan di rafetlu encore une fois émission bi ndax am na solo trop ndax ki ci bokk nga boole ko ci dafa am solo ci ay mbir kinza loolu nga wax dëgg la parce que euh, olof Njaay da ko wax wala tubaab moo ko wax pili boo pili kon li nga li nga jàpp sa bët mu rafet rek jàppal ne loolu loolu nga wax noonu la amee sunu xeetu liggéey bi croco moo ci mel ne comme or parce que ci ni ñu koy jënde lay doon morceau bu ndaw ngay jënd ñu jaay la ko lu bari kon yow mënoo cee liggéeyee liggéey ba pare ba du seer suñ ca paree iguane moo ca topp moom itam xam nga iguane kenn ku ne xam na ne rëyut lu seer nga koy jëndee soo paree mënoo koo jaay leneen lu du seer yi ci gën a tane beneen ba muy muy muy serpent moo ci topp moom itam moom itam. xëy na rëy na moo ci gën a mag mais moo ci gën a topp moo gën a topp ci seeraay bi moom itam bëloon na yele mais moom it yombiwul comme noonu mais bu dee comme deru xar nii moom xëy na moo ci mooy mooy bi ci gën a tane daal ndax fi lañ koy liggéeyee ba pare moom itam xëy na euh, rëy na yenn reyaay yi te seerut yenn seeraay yi ba mën a egg ci loolu loolu mooy tax des fois nga laal benn affaire ñoom ñaar ñëpp ñu tolloo nga laal bi ñu ne la 5000 nga laal bi ñu ne la 2500 nga laal bi ñu ne la 15000 euh, te boo xamul da ngay doo xàmmee. mais bu ci nekk dafa am ak dafa am qualité am ak ak ak ak tolluwaayam sans départ ak ci ni muy ñëwee ci yow rek noonu lay génnewaat ci yow. d'accord léegi aussi euh, bëggoon nañu xam est-ce que artisanat dox na fii nii au Sénégal parce que soo xoolee yenn nit ñu bëri euh, c'est très rare nga gis leen ñu gàddu par exemple sac boo xam ne consom euh, consommé local la fii lañ ko defaree ci biir dëkk bi et tout ça des fois gars yi dañuy préférer jënd yi nga xam ne ci yeneen réew yi lay jógee est-ce que. artisanat dox na fii nii. waa Kinsa maa ngi nuyoowaat bu baax euh, Kinsa euh, bu dee ci wàll boobu noonu maanaam li ma bëgg li li nga bëgg a wax li nga ci jublu li ma li ma jàpp ne moom nga ci jublu mooy ndax Sénégal yi ñu ngi jënd sun li ñuy liggéey nii dama naan la jëndewuñ ko nañ ko war a jënde wala jënduñu ko xëy na boo génnee tey tubaab bi moo gën a bëgg sunu liggéey bi nii wala yeneen pays africains yi sax lu mel ne ay Cameroun ay Nigeria ay yu mel noonu réew naar yi sax ñoo gën a bëgg suñu liggéey bi nii kon sénégalais yi nañ ci waroon a mel mel mel ci noonu xay na nag loolu li koy waral rek mooy sànq li nga doon wax mooy seeraa geeg yooyu ak sénégalais yi tamit benn am na ci ñoo xam ne xay na du doon ñëpp bu euh, ñu xàmmee euh, ni ñuy jëndee parce que des fois mën ngaa jënd loo xam ne da jàpp ne dafa yomb mais yombul parce que benn affaire nga jënd ko 5000 takk ko 200 wala 1 an waaye benn affaire nga jënd ko 1000 francs yor ko un mois balaa un mois nga jëndaat beneen balaa un an yi nga jënd ci fukk wala nga yàqulu ci fukk wala dootoo ko mën a jariñoo loolu yaakaar naa ne nga jënd benn bu baax loolu boo ko xalaatee séerut ba pare affaire sinwaa yi ñuy bëgg a seen bopp nañu xam ne sinwaa bi bu ñëwee fii su lii ñuy liggéey moom lay jënd pour yóbbu ko réewam pour utiliser woo ko pourquoi yow mi fi nekk sinwaa bi gën la koo bëgg euh, bu dee réew Europe la nga la fa sénégalais yi gën a xemmem ba lu lu nit jaay ñu ne la Europe la la jóge nga ciy rey sa bopp pourtant ñoom dañ fay bàyyi loolu dagg bie ñëw suñu hôtelu seer yi ñibbi si jënd suñu lii yóbbu ko seen dëkk maa ngi fàttaliku ko benn affaire buñ ma doon ni euh, benn kilifa gu mag euh, gana ji woon Espagne benn kilifa gis fa benn saak bu rafet muy xool saag bi rafet ci moom lool mu ne ko ah yow saag bi rafet na bu buñ paree nañ ma wan fan nga ko jënd ci ci Espagne fii nii mu a ko ah pourtant day lii day sa artisan yi ñoo ko liggéey boo demee bërëb sangam béréb sangam boo demee dañ ko fi liggéey loolu nag vraiment warul dal benn kilifa waaye warul dal benn sénégalais nañ xam ne li ñuy liggéey dafa baax bu baaxul woon nit du jege ca fu sori ñëw fii xéemee mu fi dara bu doon benn affaire la fi jënd affaire artisanat lay doon kon yow mi dëkk yow sénégalais bi war ngaa mën a góorgóorlu bu baax bay mën a jënd ci lii nga xam ni non seulement yaa ngi dimbali sa mbokkum sénégalais mi waaye it yaa ngi dimbali sa bopp parce que yaa ngi jënd lu baax loo xam ne si ne euh, moo gën jënd leneen te boo dimbali di lor euh, sa mbokkum sénégalais. ah mais Bassirou Bassirou tamit des fois tamit euh, da ngay gis suñu mbokku jigéen ñi ah ñëw si jënd par exemple jënd daal wala jënd saak mais du yàgg de du de. Dong koi sol wala nga gàddu ko ah même pas six mois nga gis affaire bi yàqu kon lol non lu ko waral eh, jang bi mo dess wala dafa am ño xam dañuy tebe tebe rek bëgg dugg ci métier bi te ñu ko amu ci expérience. wa kay jërëjëf gis nga lolou Kimsa kum dal xolal bu baax fa nga jëndatiwaat sa dal man defena ne yàgg ci jaay dal. waaye defe naa ne ku ma ci jaay benn waxuma la yow waaye yaa may wutalaat ay client kon loolu nga wax noonu rek mooy nekk la ca biir xam nga euh, sénégalais yi tamit métier bi dañ daf dañ xam nan laa ko mën a waxee dafa dafa bari ñu ci dugg ñoo xam ne si ne dañoo séentu neexin bi ba tax ñu dugg ci xam naa loolu tamit suñu njiit yi ak euh, OPA yi nañ ci gën a góorgóorlu bañ gën a organiser ba nga xam ne ki nekk artisan kese mooy liggéey artisan parce que loolu yaa ngi yàq leader surtout ambassadeur bi nga xam ne artisan bi moom la war a doon parce que boo jëndee dara mu yàqu rek li ngay wax mooy artisan mais est-ce que est-ce que fi nga ko jëndee artisan la tey am na ci ñoo xam ne seen place dafa yomb dañuy fàkk fenn rek gisoon benn daal ñu xool forme bi nii euh, la nga ci war a def lépp ba mu baax nga war koo jaayee 5000 moom mu ne ah moom naa ko def form bi Sénégalais yi xamuñu ne ko gisee da rafetaay bi nag dina tax ñu jënd ko lam ca waroon def defu ko ci moom mu jaayee la ko 2000 nga naan kii moom moo gën a yomb la il faut mu yàqu waaye ki nga xam da cee def lim ci war a def jënd kolom bu baax jënd salpaam bu baax jënd kibiram bu baax jël taam ni mu ko war a diwee defe naa ne boo ko jëndee daal boobu noonu defe naa ne bala moo yàq yow da nga doyal sëkk wala boo ah man de mi ngi may daal moom des fois ma romb nit sax gis mu ne ma ah, daal bi de yaa ma ko jaayoon daawaati jëg man fàtte woon naa jaay naa ko daal te man jàpp naa ne maa gën a tële ci ñiy liggéey gis defe naa ne boo demoon ci seex waaj feene rek bu la liggéeyee daal façon daal boo bëgg boo bëgg mën na la koo liggéeyal te defe naa ne am problème moom garanti beeg kañ lay yàqoog yooyu kon defe naa ne yow mi nga xam ne si da ngaa da ngaa am loolu da ma am sa dal xoolal bu baax fa nga jëndee tamit boo demee bay jënd tamit bu la ko seeraay gi yàq parce que tamit boo demee na ko ah man daal jaayam rek ñaari fan ñett laa ko ah man daal xew laa kii rek joxe ko prix bi nonu vraiment bu la ko liggéeyal nonu toñu la yow ya toñ sa bop kon loolu tamit ma nga ci biir motax kon dal bo beugé lu bax fay lu bax waxtane lu bax ah en tout cas bu doon fié day bo fi jëlee en charge ne ko li la bëgg mu defal la li nga dem ba ci biir la nga wax la ko ko métier mom dina la fay dina sa wat sa bu dé fié ci village artisanal su mais basir est-ce que ne euh, liggéey bi euh, dafa dox est-ce que yaakaaroo ne euh, yéen ngi macha allah yal na yàlla xeeb dolli yéen ngi yor ay millions moo tax gaa yi léegi ku jóge ne xaaral ma dugg ci métier bi ndax métier bi dox na métier bi moom boo ci duggee moom taf-taf nga tekki. waaw jërëjëf xam naa dox gi de nit mën na ko séentu waaye sant yàlla rek ndax àdduna moom mën nañoo wax ne dara doxul mën nañoo wax ne daal ñàkkul ndox parce que nit ku nekk ca la ngay liggéey ca la lay yàlla fekk si pour dimbali la. yow mi nekk artisan artisan bi am na ku ci am xaalis mais am na ko ci amul xaalis am na koo xam ci moo ci dàq liggéey lu nit di liggéey day liggéey comme jinne mais amul xaalis am na koo xam ne si ne xëy na moom mën a yem mënut liggéey mais yàlla dimbali na ko ci kon nekkul loo xam ne si ne ku ñëw rek uniquement da ngay am xaalis te it nit dafa war a amuru damaa dëkk ci dëkk bi yàlla sédd ma lii kii musique la ko yàlla sédd moom mu cay nekk kii way la ko yàlla sédd moom mu cay nekk kii tëgg la ko yàlla sédd moom mu cay nekk kii wuute la ci yàlla wuute la ko yàlla seede mu ciy nekk ñu yàgg ci loolu nag sun ñun ñëpp juddoo ci màgg ci yaroo ci nekk ci ñu am amour bi fas ko yéenee def loo xam ne si ni ambassadeur bi ci sun mag ñi nekkoon wala sun bàyyi nekkoon ñun duñ ko yàq loolu lañ ci ñun foofu lañ ciy xoole mais xooluñu ci xaalis xëy na xaalis bi des fois euh, mën na laa jural ñu laaj la benn affaire ne la li ñaat lay jaar nga ne quarante mille yow doo xam kii borom saag bi ñaat la ci def doog doog laa quarante mille

wala ah, li maam yi def boobu ngeen di def bo ba tay wala. waaw Kensa ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax baax loolu nga wax mom deug la mais senegal da ci bari ñoo xam dañoo bëgg dañoo bëgg xewando ak xewalando <laughs> xana arsenal nga wax waaye fiñ tol toll mbedd moo dem ya nga fa romb taabal kuy jaay bu ñepp de jaay kuy jënd kon nit ñi dañoo wara am xal am pas-pas tay ji ni man artisanat damaa neex may may may matchal sama xel. nan laay carrière nan laay def dara nan laay def nan laay fexe ba génn ci nan laay fexe ba gën a yokk li nan laay fexe waaye tey romb nga romb nga benn bis kii tëju tëju tëju ati at mën naa jël exemple ci tey sama patron muy Fatima Diop Imadi nekkoon ingénieur yàlla dogal ko mu euh, artisanat neex ko xam nga ingénieur ak artisanat ah surentuwuj parce que lépp ci xel la ñuy liggéeyee moom mu am mu indi ci ay création yu bëree bëree bëri yow nga gis ko rek xëy na yaa ngi gis muy dem ko ñëw wala des fois nga gis oto bu ñëw di jënd si nga ne ah kii daal li muy am baax na xaaral boo liggéey man ma dajale sama natt wala sama nangam wala ma fexe ba jël ci kii nangam liggéey ci mais loolu loolu du yoon lool loolu kenn waru koo def da war a comme moom ni mu ko defee am am am xel mi am xalaat ne fii kat lii ma ciy def kat gisaguma kenn ku koy def ci artisan te man am naa amour bi ndax bëgg naa cee jàppale nit tax parce que ñi ciy liggéey ñëpp bari nañ kenn ku nekk yaa nga ca kon damay dellu si waat sax ni président Macky Sall wax ne emploi war nañ koo mën a euh, seet ci euh, ci artisanal kon loolu moom des fois tey moom rek bu ñu la waxoon li muy emploi ci artisanal defe naa ne bu doon ingénier ba mu nekkoon rek munu koo def kon maa ngi woo ñeneen ñi nga xam si nag métier boo cay dugg da ngay bëgg métier ba jéem ci yokk dara waaye bul fekk nit def dara ba pare nga bëgg mbubboo ca loolee mu def pour yow am ca parce que loolu sax pour man yàlla du ko seetaan nag kon nit ñi dañuy gën a nammal seen xel yi bu kii defee yow nga góorgóorluwaat indiwaat beneen model parce que boobaa ci lay gën a dàq mais bu ñëpp dee jaay wala ñëpp génne benn modèle booba kenn du jënd kon te boobaa day yàq kii kon nañu gën a nàmmaat xel yi kenn ku ne góorgóorlu ci ruq ba nga nekk boo tëddee ngay góorgóorlu ba boo génnee nga génne leneen lu wuuteeg la sa morom di def. voilà ñoo ko déggandoo nee na na ñëpp euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi nañu gën a seen xel yi te comme niñ koy waxee rek métier dañ koy jàng loo jàngul euh, doo ko doo ko tari kon. Euh, dégg ngeen li Bassirou wax ah képp kuy liggéey ci métier bi rek demal nga jàngiwaat bu baax a baax parce que loolu day tax lépp loo defar rek gaa euh, nit bu ko jënd dina kontaan mais des nga jaay nit dara mu jënd ko du ci euh, du ci kontaan te bu boobaa lu muy wax danaan euh, artisanat yëpp la du wax kenn de yéen ñëpp lay boole dugal leen ci benn ci benn saak alors que du yéen ñëpp am na ñi nga xam dañoo mën seen liggéey di ci def du ci def lu garaaw. ñu def ay création yu rafet ay création yi nga xam ne foo ko gis da ngay ah, da am envie jënd ko mais am nañu ci nekk ñi nga xam ne tamit euh, li ñuy liggéey euh, doy na waar kon ñooñu noonu nañ dem jàngiwaat euh, métier bi bu baax a baax nga xam ne ëllëg si biir loo ci def wala loo jaay nit dina kontaan te dina am envie dellu siwaat. waa jërëjëf Kinsa noonu da ngaa wax loo am solo gis nga métier kenn du ko jàng ci internet. yom na trop nga tapé gis sak sangam sangam wala nga fekk ku jaay nga capture lepp def sa esthétique li la jaay li la jaay ñu commandé la nga wo nga xol kenn ko wo nako ko defaral defal ma defal ma non metti kenn du ko jànge loolu métier daf lay neex comme ni ma ni ma ko waxé ni mais malheureusement nak ñu bari xamuñu ko waay bu dé fi mom wax dëgg yalla xam nga looloo tax état organisé defal ñu fi lu melni chambre de métier ak yoy tay gi ni chambre de métier organisé waat ñu ba pare tamit Arsenal nit mën na koo wax rek ne moom laa waaye est moom nga foo jaar kan moo la jàngal ndax am nga liy màndargaar na yow artisan nga ba boo ëllëgee boo ci defee njaaxum wala boo ci defee loo ci war a def ñu man fuñ lay xoolee par rapport fii nag euh, ñu bari loolu dalul leen moo tax nit ñëpp képp koo xam ne daal da ngaa métier bi daf laa neex ba nga bëgg cee dugg même boo aasee fexe ko ba jàng ko ba pare boo ko jàngee ba pare fexel bay génne lo xam ci sa xel mi lay nek wa ngay bañ djel trisse yefi jambour nit ko xam ci ay ati at wala nelaw na guddem gépp yak nako ci xalat liggéey bu pare yow nga ñew trisse ko commencé def ata yow la nga tay def sax du bax parce que ñaara trisseur du mëna def lu bax parce que ñaari mëna ñoo bok même forme te bokku te tay di sama mbokk arsan tamit arsan la arsan la rek da ngay ni wuti carte sembre de métier artisanat carte professionnelle mooy tax ñu xam ne yow mii professionnel nga boo fa demee waaye artisanat rek toog sa ruq rek génn sa man sa man a dagg-dagg bu jub rek defe naa man nga dara loolu tamit taxul taxul métier mi dem te métier mi dafa war a dem ca kanam ba ñëpp mën ciy dund ndax ñetti secteurs yi ku fexe ba mu baax léppay baax muy mbay di artisanal di pes defe naa ne métier yooyu ku fexe ba ba mu baax defe naa ne Sénégal nekk na ci waa développement. voilà ñoo ngi ko ñoo ko déggandoo en même temps moo ngi lancé un appel euh, mbokk artisan yi ah ñi nga xam ñoo nekk fii nii ci village bi nee na képp ku ci amul euh, carte professionnelle rek demal euh, demal nga wuti ko voilà parce que boo nekkee ci milieu di di ci liggéey di daan sa doole yaakaar sa yaakaar ci ci li ngay liggéey war nga am benn mandarga loo xam ne buñ ne la xoolee. ci loolu noonu ñu xam ne carrément ah kii de ci lii lay euh, ci lii lay yëngu léegi euh, Basirou Mbow borom case 41 euh, gis nañu saag yi ay statue ah macha li ñuy liggéey bëri na mais est-ce que affaire bi Sénégal rek nga ko yemale wala am na yoo xam ne da ko koy da ko koy yóbbu au niveau de l'extérieur da ngay am foofu ay commande wala yow say commande fii rek la yem Sénégal wala en Afrique quoi. waa maa ngi lay nuyuwaat bu baax. bu dee kanta am moom génn gu ma waaye marché bi moom day genn parce que client bu nekk ngay am da nga wax na la fi sank ne la sun métier bi sun liggéey bi ni euh tuba bi ñoo gëna bëgg ak euh, yenen africain yi parce que amna ay client yo xam ay Togo di am ay client client yo xam ne ne day jóge ba ay Nigeria ak ñeneen ak ñeneen parce que ñu en général ñoo gëna bëgg sun ki kon day genn waye tamit dina baax tamit ci li ñu doon wax sank manam li nga xam mom lañu état wara jappalé nga xam dañ ciy gis suñu bopp ba duñ ko soxlaate dara ëllëg ay ndimbal yooyu mooy euh, mu mu def mu def Sénégal mu defal ñu suñu artisan bi ba fépp fu ñu bëgg a dem mu yomb ñu xam ne buñ dee dem dañuy parce que nit ñi soxlaatuñ dem fenn xam nga ñun xalaatuñ man lu mel nii pare du dugg ci gaal yi tay la bopp xalaatuñ ko parce que liñ liñ liñ am nii buñ ñu ci defee liñ liñ buñ ñu ci defee liñ ci liñ liñ ñu ci war a defal defe naa ne ñoom dañuy ñëw di ko jënd si bu ñu wut bee ay yoon tamit dafa may ñu ay foire ba ay visa mën ñoo yomb ba ñu mën di génn di ko yóbbu ji tamit defe naa ne ñoom soxla nañ ko parce que li ñu yor moom ñoom dañ ko soxla bu baax a baax ñu dëkk yu dëkk yu bari du ma ne Europe kese sax boo demoon Amérique loolu kon tamit foofu la ñuy woowee état ba nga xam si ne képp koo xam si yaa ngi nekk ndaw te man métti bi di góorgóorlu di jàmbaar muy metti ndax dafa metti de. te actuellement actuellement fii mu nekk nii Covid bi nii ndax ñu ngi dunde ci euh, ñi ñi ñi ñi jóge ci yeneen réew yu ñëw ci te defe naa ne ñëw dem moom lu jafe la kon donc loolu jafe na waaye tey nag bu ñu defee ba lépp jeex ñu ubbil ñu bunt yi ba képp ku bëgg a dem mën a dem dikkaat mën a yóbbu sa sa sa marchandise te boo ko yóbbu rek jàppale ne yaa ngi nekk ambassadeur Sénégal ndax loo defar lu baax rek boobaa dutuñu wax kan moo ko yóbbu naa Sénégalais lañ dem boo demoon pavillon dañ naan pavillon Sénégal Sénégal yi ñoo liggéey lii Sénégal yi ñoo liggéey lii te ñun nangu nañoo concurrence ku nekk même tubaab bi nangu nañoo concurrence ak moom parce que defe naa ne bu ñu yàlla dimbalee moom ci sóorasam ah gisuma ko ñu ko fi dàqale ci liggéey rek mën nañu ëpp moyen nag des fois nag ëpp moyen ak dàq liggéey dadul benn waaye ku ñu dàq liggéey moom bariwul de bu mu ne amul waaye bariwul de. d'accord nee na ku leen dàq liggéey euh, bariwul léegi si sa biir wax rek wax nga euh, Covid bi te gis nañu euh, mbas bi métti na trop. metina ah, ci bépp bor bo jëlee ci kat bi a bo jëlee tamit ci ñeneen ñi ñëpp ko yek li nga bëggon xam yeen nan ngeen ko dundé waaw Kinsa no affaire bi triste metti rek ñun rek ñaar yoy dong la metti lool lol lool ndaxte nit ki nga xam ci si ne boo daan xey amo lenn loy yaakar lu sa place bi bo ñëwee am say commande am say liggéey tubaab yi di ñew di jënd nga dem ba benn mama yow sa jëmmi bopp sax yow mi war a ñëw sax sa ñëw jafe na wala des fois sax ñu ne tere la ndax am na fi jamono yoo xam ne si ne dañ naan la 4 heures ngay wàcc yow bu fekkee da ngaa war a jóge Pikine war a ñëw fii bala ngaa ñëw 9 heures nangam jot nga war fee toog quelque temps te xamoo sax ndax paas bi nga am da nga fi amaat lu la delloo xam nga loolu moom ku ne méttiwul rek da nga cee jaarul mais sant yàlla rek waaye nag lépp loo xam ne si dafay ñëw te yow tegoo ko sa bopp amoo ci lu dul muñ rek xanaa kay ñi nga xam si nag jox nañ leen seen sunum réew watal nañ leen jàppale nañ ñu am nañu jot waaye ñi jotagul nag ñooñu la ñuy jooyal ngir yàlla ñoom it ñu mën a jot buñ jotee ba pare nag ñu organiser ñu comme ni ko état waxee emploi bi nga xam si ne bëggal na ko ndaw Sénégal yi tam yaakaar na war na koo mën a amee ci artisan yi mu fexe ba former artisan yi te former artisan yi bu mu yem ci rek ñu naan euh, tàmbalee ci trent cinq ans quarante ans parce que loolu tey mën nga am cent ans mën nga am cent dix ans yor sa atelier yor say ndaw ndaw mën naa am trente ans liggéeyut te xaalis en sénégal nga jox ki ku ko xam dafa gën a doy nga jox ki ko xamul te boo joxee boo joxee mag mi mag mi mën naa organiser ba ndaw ñoom ñëpp liggéey ca. kon dàquma jox ndaw ñi waaye buñ ko boole foofu rek ne ndaw kese 40 ans rek ndax bu boobaa bolokaas lay doon ndax tey am na ci ñoo xam ne si ni seeni i place ak seen i dund ak yëpp ñoo yor ñoo ñoo ci yore seen kër yor seen i doom yor seen yëpp defe naa dëgg la nag boo defalee ndaw ndaw mën naa wëlbati ko yoraan waaye defe naa généraliser ko rek wutal ko ay yoo xam si ne xaalis bi du xaalis buy wërta nekk xaalis buy naaw falaay rek di dem. dañ ko war a organiser ba nga xam ne yow mi koy jël daf lay wóor da nga ci war a liggéey boo ci liggéeyaatee mu war a delluwaat Sénégal yi yow mi ko defal ren boo liggéey dootoo ko soxlawaat ndax fekk nga liggéey ba mën a am bu ñu leen organiser ba mu mën a demee noonu defe naa ne loolu moo gën génne rek ab xaalis comme wóor ma nag parce que da ngay dégg ñu naan euh, des fois seen militant yeeg lañ koy jox ak bo DR ku mel nii moo fa mën a am ak ku mel nii moo fa am déedéet nañ ko génn jox ko ñëpp bépp artisan boo xam si da ngaa bëgg a liggéey bëgg a liggéey réew mi ñu formé la bu ñu la formé ba pare jox la dëkk yi nga xam ne dañoo nekk ci village yi ñëw ndakaaru te ñoom duñ sonal kenn ci mars état sax da leen waroon a jaajëfal bu baax a baax ndax des fois foofu moo gën a néew ay réalisation mooy àll bi amul dara fi mu toll boo duggoon ci wàll arsenal ak lu ñu liggéey daanaka mën na nañoo wax ne amul dara dara lu ñu fay def wax naa la sànq fii ne la sama dëkk ba ma dëkk muy Kër Mor laay Seye di commune bu Mbéjéen soixante-dix village la amul benn mètre goudron dëkk ba ma dëkk amul courant commune bi yëpp ci ñetti régime yi fi jaaragum yëpp weesoogul fukki dëkk yu ñu électricité ndox ma doyul ba nit ñeen caa mën a bay te yooyu yëpp dafa xawa a méngoo ak artisanal ndax baykat bi mënul dem sa artisanal bi parce que yow li nga fi nga jaar ba tudd nit ki artisan boo fi jaar parce que ki la abiyee artisan la ki la solal daal artisan la gob bi ngay bay artisan la machine bi ngay bay artisan la kon arsan bi buñ leen dimbalé ci lool rek dekk bi day dox té ñom ah kenn dégg gu ñuy marché té pourtant ni ñi ñëpp di marché ñuy toj di yaq mané nañ ko non waye nak xayna jombalé nañ ko seen bop kon ñom état war na leen gëna gëss waat gëstuwaat na ñi ko wax dëgg ñi ñu gor lu bu baax ca dekk yeen nekk bu bay jété dañuy bay bu liggéey jété dañuy dañuy liggéey donte ñu ngi ay jafe-jafe jaay seen jafe-jafe yoy neub nañ ko ba defuñu ci leen lo xamné ci dañ nan li lu warul la waye momit it loolu da leen ci fayale nan nak fep fu mana nek na la fa courant fek fep fu mana nek na la fa yoon fek ndax tay ji sama atelier bi nii waroon na fa mana am sama entreprise bu mak bo xam ne fa liggéeyee na man ko yobbu Europe muy dem sama benen morom man nako am ci yenen dekk yam am am na dekk yo yoo ay dekk uudel lu ay lu mel ay mbel gor ak ay nangam ay lañ seen dekk yo war nañ fa mana am lu mel non ay entreprise yu mak di fa liggéey di yóbbu mais est ce que ay yoon est ce que tey man tey bu ma doon dem sama dëkk nii jóge Dakar dem Louga moo gën a yomb fuuf ma jóge Louga dem Kër Morab bi sëkk te 20 kilomètres la Dakar ak Louga ñaata kilomètres la est ce que loolu kon dina ma poussé ma ma fay ubbi dara est que moo est ce dinaa ko man sax ba pare sax est ce que am naa lu ma jàpp pour mën a def loolu kon bu ñu ma dimbalee dimbali sama morom. defe naa dimbal googu fan lay duggaat ci Sénégal rek lay duggaat mënul génnaat feneen fu Sénégal kon ñu ngi ci woo état di ci woo président Macky Sall bu baax a baax wax dëgg yàlla rafet rafetlu nañ taxawaay bi parce que lu ko jiitu woon na président chambre de métier yëpp digaloon na leen bokk ñu dem sali def fa benn lël ak mbooleem président OPA yi wax leen waxal leen ma lan mooy jafe-jafe artisans yi ak lan lañ ci mën a def kon bu lii ñëwee xale yëpp génn ci mbedd mi wane seen métit wane na Sénégal ni ko war a mu wax ne dégg naa leen déglu naa leen wane na dinaa ci def waaye dinaa ko jaar ci Arsenal kon damaa jàpp ne lam def lu woon bàyyi na ko xel waaye ni ko déggee na ci gën a góorgóorlu bu baax ba ñi koy jox mu mën a egg fa mu war a egg ndax des fois dara dina génn ba pare du egg fa mu war a egg bu eggee fa mu war a egg rek defe naa ne loolu lépp parce que li ma jàpp mooy amul benn jiitu réew boo xam dañ laa fal te te bëggoo bëggoo liggéeyal sam réew kon loolu laa jàpp kon. na lu bu baax ba milliard yi wax dina ko génne def ko ci ndaw yi am lo xam da koy jaar ci artisan yi am lo xam da koy jaar ci baykat yi na ko jaar fam ko wara jaar na génn fam wara dem ñi wara dem ci ñeen bu ñewé li lay rasuli nitit bo nit it bu la falee def lola lam la def lo dang ko wara def parce que bu la xisse boy wut mom am nga parti bo fété waye bo xisse bay am amatoo parti bo wara a féete Sénégal gépp nga war gi tay ni sax japp ne bu fekkente ne ñëpp dañoo boo ànd ñoom yow da ngaa war a góorgóorlu pour nit ñi war a ànd ak yow man de laa jàpp kon kon bu mu ne kii far na ak man bu mu ne kii farut ak man na fexe ñëpp far ak moom ndax Sénégal nit doomu aadama moom bañul kenn doomu aadama dañoo wax na boppam rek la bëgg foo ko teg mu teg la fa. kon président Macky Sall fu mu ñu teg rek ak lu mu ñu yéene rek loolu lañ koy delloowaat waaye bu gisee nag chaque jour ci ay jafe-jafe la ñuy kii rek loolu mooy wane lii mu gis fii barki dem ci mbedd yeeg yooyu. Euh, kon na ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax xëy na ñetti at bari na bëriwut waaye bu ci góor góorgóorloo ànd ceeg artisan yi dimbali leen jàppale leen jàppale baykat yi jàppale sàmmkat yi defe naa ne Sénégal jëm kanam. c'est un message fort dégg nañu euh, li Bassirou euh, Mbow wax ah case 41 j'espère que euh, ñëpp dinañ ko dégg ñi ko war a dégg dinañ ko dégg te incha allah xam naa dinañ ci def li leen li leen war jàppale aussi village parce que depuis sànq. bu bu wax rek da ngeen di dégg mu naan les villageois les villageois donc ça veut dire moom xalaatul boppam à chaque fois bu waxee rek euh, moo ngi xalaat mbokkam yi nga xam ne ñoo nekk euh, fële ca ca Louga voilà kon euh, gars yi ñoo ko déggandoo ñu ñëwoon fii nag ci Soumbédioune seet si suñu naataango Basirou Mbow borom case 41 di yëngatu ci wàllu artisanat léegi Basirou mu bëggoon xam rek ku bëgg ci nii est-ce que am nga numéro wala yor nga page Facebook boo xam ne gars yi nañ fa mën a dem. xool wala nañ la mën a woo téléphone. waaw Kinsa ñu ngi lay jaajëfalal bu baax waaw loolu de moom am na solo parce que tamit wax dëgg yàlla boo dëkkee ci dëkk dëkk defar la lépp muy dëkk bu baax euh, nga màgge fa bokk a gis naw la normalement normalement normal na nga bàyyi ko xel bu baax sa biir wax nga boole ko ci. et puis tamit sénégalais dañoo war a bàyyi euh, képp kuy génn rek di génnal sa bopp kese parce que yow boo amee yow kese euh, baaxul. nit ñepp ñu bokk am li ñuy def lepp nit ñepp bokk ndoko defe na lool loolu ñuy jëriñ ndax euh, affaire yi dafa wara dafa dafa ndax amna lo xamne dama koy soxla ci keneen amna lo xamne keneen da koy soxla ci man kon bu ñuy bu ñuy bu ñuy taxaw rek dañoo war taxawal ñepp waaw Kinsa euh kep ko xamne li may def ba ci walu marakis simple ak lepp lo xamne jëm na ci walu marakini soko soxla dañ da may contacter contacter ci 77 510 22. 19 wala page Facebook Bassirou Mbaw boo fa ñëwee rek boo fa duggee rek après boo defee sa commande rek wala boo ñëwee rek dinañ fexe ba nga am li nga bëgg ci kàttanu borom bi incha allahu rabbi. voilà ñoo ko déggandoo ku ko soxla rek euh, soo duggee Facebook nga tapé euh, Bassirou Mbaw di nga ko gis sinon mën nga ko woo ci 77 510 22 19 voilà ami internaute euh, li lañ leen andiloon tey ci seen émission. koom-koom di leen di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.